Mola Morgan ku nekk xam ne ni Mola semaine bi yëpp wala euh, donc lu mat deux semaine ngi nii mu ngi wax sénégalais yi que dafa yor ay audio yoo xamante ni ay audio Adji saar la. Mm-hmm. te dina ko génn exploser la toile donc mu ngi live ñëpp a ngi koy suivre. Mm-hmm. démb moo nekkoon ultimatum bi dernier dimanche nga xamante ni bi daf ne démb ci lay exploser nag àdduna bi parce que ci lay génne audio yi. Mm-hmm. donc du coup démb live bi yaakaar naa ni àdduna yëpp ko seetaan ndax nag sénégalais moom dafa dañ kumpa te fekkee la bëgg. kaa la ñu bëgg. démb donc à notre grande surprise ñu seetaan live ba mu jeex tàkk. Mollah génnewul audio wanewul audio ba pare li mu ci teg mooy ne ki ko doon jox audio yi palais la nekk nee na palais ku nekk biir palais Macky Sall moo koy jox ojo yooyu te kooku noonu fi mu nekk ni dafa commencé am ay problème parce que dañ ko commencé menacé nekkatul sécurité alors Mollah nag nee na kooku lay protéger moo tax génnewul ojo yi parce que su génnee ojo yi affaire bi day ëppi loxo. Jimbori. waaw xam nga man Mollah Morgun. Hmm. boobu ba léegi maa ngi koy gis muy live mais moom li mu bëgg a xamal sénégalais yi moom moom xama ko xama tey booy xamal nit ki. Mm. li ngay xamle danga kaa war a xam ba pare yow. yaa ngi dégg dont da ngay wax dëgg xanaa am loo donte da wax dëgg ci biir wax dëgg googu yaa ngi dégg mun nga cee juum daan xamalu tax mm. que tey bi mu njëkkee génn def live bu munoon a seet. ay cinquante mille vie nangam la doon am mu dem ba mu yàgg nga xam ne buy live sax vie yi mu doon am amatu ko yaa ngi dégg mais xëy na moom buy live pour bëgg nit ñi topp ko nit ñi ñëw seetaan si ko moo tax moo moo tax mu di leen dig lu mu leen dul jox te ba pare gis nga message buy dëgg ak buy fen ak lépp boo koy wane te bëgg caa wane sa bopp nit ñi duñ la gis parce que boppam lay wane gis seetaan naa ko léegi mu def live live boo xam ne amul argument amul dara gis nga nit. kaam wax la dara boo waxee dara. yaa ngi dégg. yow nit ñi nga wax leen ko. loolu feeñagut. bala ngaa waxaat pour man. da ngay toog ba nit ñi gis loolu nga doog a yokk. mais mënoo dëkk ci di wax chaque jour. xoola benn buxaaba dafa doon wax ni man kaay leen ma wax leen ni may dundee. ñu ne ko nooy dundee mu ne moom xam nga nu muy def. day yëngal ba pënd bi jóg dégg nga. mu toog ba pënd bi dal mu yëngalaat. ñu ne ko lu tax ngay def loolu mu ne parce que boo yëngal ba pënd jóg. nga continuer di yëngal ci biir pënd bi lañ lay fekk rey la mbaa nga rey sa bopp. waaw loolu ba dal na ko nii quoi li muy wax ba pare si ay kilifa la koy wax parce que boo attaqué pale hmm. boo attaqué directement pale hmm. yaa ngi dégg pour nit xam nga Ousmane Sonko. Hmm. ñun bëgg nañu wax dëgg yàlla bu Macky Sall jeexalee Ousmane nekk président mais ñun bëgguñu ngay jëndal Ousmane Sonko fasu yaa biir te doo ko ko guble. loolu mooy lan. fasu yaa biir c'est-à-dire yow yaa ngi ba Europe tëdd fa nekkoo ci Sénégal. Mm. Ousmane Sonko moom ak lu mu si mënti def Ousmane Sonko moom mooy affaire bi parce que xam nga lu tax. Mm. Ousmane Sonko bu defoon ni Mollah Morgun est-ce que coow dina am. bu defoon ni Mollah Morgun. waaw c'est-à-dire que mu def lan. actuellement Mollah Morgun boo demoon di ko indi Sénégal. Mm. fay ko cinquante deux milliards du fi jaar. non je pense pas je pense que bëgg Sénégal baax nag moo tax. non moo tax moo tax muy wax parce que tôt ou tard il va revenir dafay dellu si fii. waaw ok kaay ma wax la dara bu Sénégal di baax. Hmm. kan mooy baaxal Sénégal. ah mais gisoo sénégalais dafay juum ci lu bari gisoo dégloo dañuy wax ni yàlla nee na ñaan leen ma ma may la ma may la ko ñaan leen ma ma may leen loolu dañ ciy juum damaa damay defar sama réew woo moo boobu tamit dañ si juum xoolal si diw sa nawle la aussi dañ ciy juum. yaa ngi dégg ñetti moo yooyu ak say nopp ñetti wa wax yooyu yëpp wax bu ñu war a changer la est-ce que xam nga loolu. moo gën dafa bëgg Sénégal baax comme tous les liveurs yi nekk ci diaspora bi yëpp di live bu leen neexoon ñu ne ñu ngi bitim réew ñu ngi Amérique wala ñu ngi France donc talatuñu Sénégal dañuy maandu liggéey tranquillement am nañu lu ñu bëgg am banque seen i loxo waaw léegi mais dañoo bëgg Sénégal ciy wax di ci participer di ci joxe seen avis donc ñu leen ciy menacer. ka kaay mu wax la dara sooy taal safara yow da ngaa war a toog si biir safara si. Mm. non xaaral ma la boo nekkee extérieur nekkoo ci réew mi. Mm. lépp loo wax yaa ngi taal. est xam nga lool ngay wax jàmm ak waxoo jàmm yépp yow nekkoo si biir safara si bëgg a siisu fee munul nekk. alors dinaa ñëwaat ci ah. yow mais Ndeye Gueye d' sa avis par rapport ak euh, Mollah Morgun bala maa ñëwaat ci Jimbo yi. man du ma seetaan Mollah Morgun. lu tax. dara seetaan moo xanaa mu romb ay vidéo ci TikTok jël sama temps nii téléphone wala ma toog sama di seetaan. Ndeye Gueye xanaa doo patriote. non même bu ma dee patriote man euh, ay nopp garmi laa yor bëgguma déglu lu bon jàmm rek laa bëgg dégg parce que réew mi jàmm rek moo ci xel. <laughs> Ndeye yow dama yaakaar ne nag Ndeye Gueye nga bokk. non c'est pas une question man. dégg yow non non non mais attends uh-huh. man. Uh-huh. man. nëbbu mm. dégguñu ma waa dégguñu dafa suufee la ñu wax. sama micro mi ngi tàkk de. mi ngi tàkk bien sûr continuel. continuel ci continuel. Uh-huh. man. su ma bokkee affaire du du tey tamit bu dëgg jotee su ma ko war a waxee dama koy waxee. ku mu neex ku mu naqari dama la koy wax. Mhm. nga bañ ko nga bëgg ko dama la koy wax mais man Ousmane Sonko je l'adore. Mhm. dama ko dafa ma neex. Mhm. sa personnalité dama koy wax fu ma toll mais dama ne am na yoo xamante ne man bëgguma di ko dégg. va yi wax leen ma est-ce que micro Ndeye Gueye ça va maintenant est que ñu ngi koy dégg bu baax léegi ok nee na c'est bon vas-y. comprendre nga. Uh-huh. parce fitna. Uh-huh. yàlla rëbb na kuy yee fitna. te suñu réew mi dara xaju ci ci jàmm nee naa leen coow soow ko aji Sarr nañ ko fay ca ba muy teel buñ ko fayulee hmm. yuuxu dina jëpp fuñ ko foogeewu te kii am na lu ma ko won am na lu ma waxtaan ko du ma bàyyi ma fen bu du dëgg dama ni rek du dëgg am na loo ko wan yow tamit yow yor ay da yor ay dossier man non man non non. am na lu mu wax quoi. man sama yoon nekkul ci yooyu. man sama yoon newul ci problème mu Adji Sarr Ousmane Sonko seen problème la yàlla rek moo xam yàlla dong moo xam te yàlla rek mooy àtte. Hmm. barke Cheikhul Khadim. Hmm. ñun ñi ñëpp xamuñu dañuy wax rek. yàlla rek moo xam. dëgg la je suis nii Adji Sarr nii Sonko mais man dëgg rek laa bëgg. te dëgg mooy njëgg mooy mooy njëkk mooy mujj dama ni Sénégal jàmm rek moo fi xaj leneen xaju fi lu dul jàmm ndax ay ay ay mag ñu baax ñoo fi tëdd. Hmm. kon jàmm rek la ñuy ñaan Sénégal man nag moo la mënumaa sori ci moom parce que seetaanuma ko wax fa dëgg yàlla xaw ma sax ay audio du mu demee man. seetaanoo Mollah Morgun. barke Serigne Fall. c'est-à-dire que yow képp kuy wax ci euh, képp kuy critiquer état doo ko seetaan wala. non non non non non non non non. Hmm. luy loolu loolu xanaa man xanaa man est-ce que bokk APR. non man sama bokk APR bokk APR nii rek la de. <laughs> dégg ko dégg de dama bokk APR ndax xam nga lu tax. Hmm. man benn. ok Sall bi ma koy xam boobu président assemblée nationale la Serigne Saliou Mbacke moo tax ma xam ma Sall. ndeysaan. Salam Diallo moom fa yóbboon ma daje fa ak président Macky Sall ak ndem si yàlla buubu. Hmm. ak Pape Samba mii tey. jege président Macky Sall. Mhm. boobu laa xamoon président Macky Sall. ok ak Ndeye Khady Niang dëju Ndeye Khady Niang. Mhm. boobu ba tey Macky Sall fu ma gis sama tur lay jaar. ah bon jab waaw jabaram ñëw baax nag reconnaissant lool. leneen ñëw ba ma ba ma leen xam sax boobu ànduma ak APR. comprendre nga. Mhm. mais yàlla dafa dogal Mame Boye Diao nekk sama xarit nekk sama lépp. te nit boo ko bëggee lu mu nekk da nga cay nekk. looloo tax ma dem APR. d'accord. mais man ay ay détails yi duma ci dugg parce que sama yoon nekku ci parce que man dama am nawle. d' accord alors euh, dinaa ci taxawandi tuuti parce que damay ñëwaat ci jimboor yi euh, par rapport ak li ngay wax parce que jimboor dafa bëri ñoo xamante ne bi ci diaspora bi la ñu nekk dañu lay seetaan yow euh, dañuy seetaan Ndeye Gueye mais aussi ñoom aussi dañu am seen mot à dire ci li nga xamante ne bi noonu la Sénégal di dox c' est pas pour rien ñuy wax ay député la diaspora c' est pas pour rien tey booy dem ba bitim réew di fa campagne pour waa bitim réew àndandoo ak donc ñoom. am nañu seen mot à dire. Mm-hmm. na ñoo wax ci li nga xamante ne wax c'est pas parce que dañuy wax pour taal réew mi. Mm-hmm. mais dañuy wax pour réew mi baax. Mm-hmm. non xam nga secret biir néeg ku ko indi ci penc yaay fenkat bi. Uh-huh. est-ce que xam nga loolu. secret biir néeg waaw. xanaa am loolu dafa am wax bu xam ni soo ko waxee tuyaaba la am na wax bu xam ni soo ko waxee bàkkaar la te wax wax la rek xam nga kan moo bari wax est-ce que xam nga ku bari wax. ah mun nga maa waxal ku bari wax. maa xam nga kan moo bari wax. Hmm. kiy wax wax ju amul benn njëriñ. bu xam ni wax xoola mola mi ngi wax de ñun Sonko ñoo nekk ak moom fii ci senegal gi yaa ngi dégg. ñoo gën a xam lépp naka la parce que affaire viol affaire viol bi affaire Sonko. Hmm. du ma tàyyi di ko wax chaque jour ma ne leen affaire Sonko Adji Sarr nekkatul Sonko Adji Sarr coow li moo ko jox dayo bi mu am mais dayo boobu ñu ko dayo ñu ko foog amu ko nit ñi ñoo ko ko jox parce que yow damay xuloog Ndeye Gueye Ndeye Gueye faral Adji Sarr man ma faral Sonko ñuy régler suñu problème ñun ñaar hmm. bu Sonko yëgul Adji Sarr yëgu ko hmm. moo xoola fu mu toll ni Adji Sarr ak Sonko génn nañ ci problème bu bu yàgg ñi amaat problème ci biir problème bi moo ëpp fuuf ñu ko fi amaat. comme ça xam na ci lan la ñu war a dimbalee. Ah? waaw xam nga ci lan la ñu war a dimbalee instant bi mhm. ci ay Adji Sarr ay Sonko. waaw gis nga loolu dañ ñu cee war a dimbali te yàlla tax. xam nga ci lan lañu war a wax. ah mhm. weeru koor la nekk. suukar bi dafa yokk ceeb bi yokk diwlin ji yokk ah. Mhm. ci loolu moo ëpp solo ñu war di ci wax te bàyyi Adji Sarr Sonko. mais kan ñu may ñu jàmm. mais kan yàlla war a suuli. kan moo ñu ci war a dimbale. est-ce que du sa waaji sa waa est-ce que du sa waa non mais sa waaji moo ñu ci war a dimbale. sa waa ji bu jëloon bu jëloon tànkam dëgg ci dossier bi gis nga jibóori li ñuy waxee Adji Sarr Sonko noonu mm, mm, mm. bu ci doon insisté ci ceeb beeg dawliñ bi di ci wax noonu ak luyaas bi ni mu seeree billaay wallaay président Macky Sall mën na cee jot ba def ci xew comprendre nga ni ñu sonkee ci problème Adji Sarr yi kenn ku nekk di live man waxuma Mollah Morgun kese de ñu bari dañuy live ci sonk Adji Sarr ñu bari seen plateau Sonko Adji Sarr nañu nañu may jàmm te jubali ci ceeb beeg dawliñ bi tax ndéy léegi hmm. xam nga yow sànq danga nga ne APR nga faral. waaw noonu kon léegi léegi nii rek wan nga ni Macky Sall responsable am ci réew mi dafa des. non je parle non xaara xaara xaara xaara déglu ma déglu ma Ndeye Gueye Ndeye Gueye déglu ma. loolu même boo nee APR gis nga dëgg. déglu ma Ndeye Gueye dëgg mooy njëkk. waa waaw xaara même dama di APR tamit. Ah. su ma waree wax loo xamante ni président Macky sàll bu ko jotee. war na ci mën a def. waaw déglul man waxuma ay waxu irresponsable. waaw dama ni yow da nga ni buñ ko dee wax président Macky Sall jot si kon da nga jàpp ni Macky Sall moom réew mi xamul nu muy demee quoi. non comme maanaam waxuma cadre mu xamul nu muy demee. ba ma bàyyi sa téléphone bi. ñu ñu ñu ñu yéen rek laay déglu waaw waxuma ay cadre ay Macky Sall xamul li ci réew hmm. xam nga ne ci réew gis nga ni ñuy ca kawu Adji Sarr Sonko. di live kenn ku ne di ci di di ci jot. di di ko waxtaanee di toog ci plateau yi noonu la ñu war a laay fee noonu di def ceeb beeg diwlin bi. waaw ah, mais ceeb beeg diwlin bi bala ñu koo mën a live bala ñu koo mën a live parce que lii problème justice la il faut mu jeex d' problème justice la ñoom mhm. ñoo ko jël yóbbu ko ci penc mi. Mhm. te sa waa ji président Macky waxoon na ne am na dossier yoo xamante ne bi moom moo ciy teg tànkam boo ci tegee tànkam ñu of ko fàtte ko alors pourquoi moom mënul jël dossier bi teg ci tànkam li laay war a sóole ñu fàtte affaire Adji Sarr Sonko comme 14 personnes déjà dee nañu ci loolu laay wax rek ma ne man su ma sañoon yii yëpp dañ koy jël ñu teg ko ci suuf non mënoo ko teg te amoo foo ko teg quoi gis nga àdduna loo fi mhm. gis lu ñu mënul rek la amul lu ñu munul lijjanti ci àdduna amul. Hmm. waxtaan loo gis ci àdduna waxtaan. Hmm. réeroo amul ñàkk waxtaan moo am. Hmm. problème bii. ku ci deful ndànk. yuuxu dina jib fi ñu ko foogewoo waxoon naa ko keroog te waxaat naa ko tey ñaari yoon. yuuxu dina jib fu ñu ko foogewoo. billaay wallaay taala bakk Cheikhul Khadim nañu tey ci problème bii nañu bàyyi problème bii mu sedd ñu gas ko suul. président Macky Sall na génn Sonko na génn ñu daje ñu toog ñu waxtaan jàmm am ku war a jël réew mi 2024 nga jël réew mi. loolu rek laa bëgg man. Bamba daa mm. wax la benn affaire. gis nga président Macky Sall ak Sonko coow li du ñoom ñaar. Mm. comprends nga li ma la wax. waaw parce que gis nga euh, euh, dañ ni dafa am benn yonent boo xam ne dafa ne mm, tey bu ma gisee yàlla dinaa ko ñaan ñeenti affaire. Mm-hmm. jibril ne ko comme man sa xarit laa laaj ma li nga wax ma li ngay ñaan ma mën laa digal mu ne tey bu ma gisee yàlla dinaa ko ñaan taar jibril ne ko na nga fa làng ak wér loo rafet-rafet boo wérul du feeñ mu ne ko bàyyi naa boobu léegi su ma ko gisee dama koy ñaan njàmbaar mu ne ko na fa làng ak doole ju bari mu ne ko kon bàyyi naa boobu su ma ko gisee dama koy ñaan tabay mu ne ko na nga fa làng ak wërsëg bu bëri loolu loo tabe tabe boo joxee alalu jàmbur ci kaso lañ la jëme mu ne ko léegi bàyyi naa boobu dama koy ñaan dëkku jàmm mu ne ko na nga fa làng ak dëkkandoo bu jub comme ça mm. xoola bàmba mm. dama gis ni président Macky Sall bi mu gé bi coow li amee mu génn dafa ne moom yëgul woon coow li mm. kon bi mu génnee déclaré sénégalais yëpp ne yëguma coow li kon si la yëg coow li te ba tey coow laa ngi déroulé comprend nga waxu ci waaw waxu ci léegi kaay ma wax la dara est-ce que xam nga coow li dafa arrangé nguur gi arrangé opposition arrangé wul réew mi. waaw Macky Sall yaa ngi dégg may ma ma yeggale. coow lan la ci non may ma ma yeggale ndéyge wax nga ba pare quoi damaa bëgg nga may ma ma wax ci ah, xam-xam xam nga. parce que waru ci wax su dama ne Bamba Bamba lan lay wax. Bamba eh. yow laay waxal wala kii. waxal kii day wax waxul kii dafa con. yaa ngi de waaw mais xoolal léegi. Macky Sall suy wax lan lay wax. yow laa wax de xoolal waaw sama léegi yow xoolal boo koy laaj bu ko laaj Bamba wax ma ko man. waaw léegi moom lay wax. si lan lay wax. mu arrêté affaire bi mun na ko. waaw waaw déggoo ma ne la. waaw waaw sama wax. yow kon sama wax ja rek rek nga jël. mais am ni mu koy arrêté. yow yaa wax loolu yow yaa ne. nañ ñu dimbale ci cool yi cool yi kenn lañu ci mën a dimbali mooy justice te justice je pense que euh, tey bu fekkoon ne ay dossiers la yu ñuy dëgg seen tànk bañ bañ ko. wax kenn doonga moo mën jeex mu jeex. muy président Macky Sall na. keneen ku dul kooku mënoo ko jeexal. yow lan ne ah. lan moo tax nga ne pourquoi président lu tax lan la waru cee wax de. lan la moom bu génnee a wax moom. waaw li eh, te ngeen yëfi la wax. bamba waaw nee ko li mu war a moom wax ko mu wuyu ma moom wax ko mu wuyu ma xoola li mu war a wax. bu ma fon tonton tonton la. Ndeye Gueye moom nga ndogoo ñëw. ndax yaa ngi xeeñ xul nag jën. laajal jimboori lan la lan la président Macky Sall ah, war a wax la yaa ngi dégg dama ne. moom moo ni yëgul woon coow li. mais li am dootul am du moo ko wax devant ñëpp. ok léegi bu ñu gisee coow li di déroulé nii. ma ne la coow li dafa arrangé nguur gi. ok xam nga nu mu ko arrangé. fu mu toll nii ñun li ñu war a wax waxuñu ko. mooy lan. da dañoo topp coowal aji saar am ko aji saar indi ko aji saar léegi ñun ban ban pertement lañ ci am mooy réew mi fu mu toll sax yëguñu ko. ndax aji saar ba pare coowal aji saar nekkatul aji saar ak Sonko nit ak nit la problème mu nit ak nit la xam nga moo Mollah Morgun mii ngay wax ni. Mhm. bi mu génnee dafa ne dafa am ku koy jox ay info ci ci palais bi. loolu la wax loolu la wax. waxul Macky Sall moo ma jox. waxul Ousmane Sonko moo ma jox waxul kenn moo ko jox nit la sosor rek munul tudd turam. Mhm. ba pare moo laa si boppam fu mu toll nii bu fekkante ni vocal bu njëkk bi ñëpp dégg. ñun ñëpp dégg nañ vocal bi. ba pare viol bàmba kan moo koy àtte kan mooy àtte viol nga foog wax ma ko ñun dañoo topp di coow rek mais bu dee am xel mi ngi ci ñun bàmba ñun ñooy jeexal coow li léegi laaj naa la kan mooy àtte viol ma laaj la ko xam nga ko. docteur mooy àtte viol. mais du keneen. docteur bi waaw parce que mooy visite xool ba xam man mii kat sama pays dugg na ci pays ndaw si waxal sama pays. mais loolu loolu romb nañ ko bu waa waaw mais dama lay wax ne ñun bu ca booba la ñu waroon a jàngat loola pare ci. yaa ngi dégg Bamba PV yi njëkk a génn wax nañ ci loolu bu waa léegi dama ne ñun damay lay wax nag li ñu topp di coow Bamba mu ngi mel ni jaan dem ba pare ñu topp ci watit bi dóor affaire bi. suñu xel ah, xam nga lu tax yàlla bind nit jox ko xel hmm. ah pour xel mi di xalaat di xel li lu jar lu ko jar ak lu ko jarut bamba ku kuy def lu lu jóg nga tàccu di nga tàccu ba sa loxo yi booy te ba pare ñun dañuy tàccu lu jarul tàccu comme ça hmm. aji saar keroog wax naa la fi ne la dafa am lu mu def lu xam ne moom bàyyiwu ci xel xanaa am loo réalisation boo gis réalisation yàlla da ciy duggaale hmm. keroog aji saar bi mu génnee lan la sol yére bu weex. blanc. ah drapeau blanc bi yére bu weex lan lay symboliser. la paix la paix. léegi yére bu weex lu muy symboliser waat mooy combinaison bi jom yomal xiyaam. Hmm. moom la ñuy mujjee laxas nit. Hmm. léegi moom acte bi mu doon def. xoola mais li muy wax nii dëgg la Ndeye Gueye acte bi muy def. li muy wax nii dëgg la xoola acte bi muy def. lan lan la si lan la def. parce que ñun munoon nañoo yeewu ci suñu bopp. Mm. waxuma Sonko moo def waxuma sonk deful waxuma Adji Sarr moo def waxuma Adji Sarr deful. Mm. mais Adji Sarr ñaari kanam lañ wan. kanam bu njëkk ba mooy ñemewul sax xool nit ñi. waa kanam bu mujj bi mooy ban mooy mu ngi xool nit ñi. Mhm. ba pare lan moo linkale Adji Sarr ak ak ak ak Macky Sall ba lu waay wax us euh, euh, kii Adji Sarr ko si ci ci Macky loolu moom loolu moom je dis yoonu Macky Sall ci. c'est parce ah, que baax baax na moom mooy. opposant non yoonu ma ngi ci yoonu ngi ci de l'opposition c'est parce que Sonko mooy le chef de l'opposition. waaw boo ma laajee dinaa la wax yoonu ku wax ku wax bu ñu ko waxee donc on fait allusion à Macky Sall parce que ki nga xamante ne bi dañ ne moo jiite opposition bi. donc euh, benn régime moo fi nekk. muy président Macky Sall. waaw loolu moo tax. waaw léegi déedéet xam nga parce que Macky demul woon ca cabine ba. fekkewul woon la fa xew donc Macky nag wax dëgg yàlla donc côté boobu mën nañ ko cay génn yoonam ne mais Bamba dama ne la lan moo linkale mais mën na fay waa xaara xaara dama ne la lan moo linkale Adji Sarr ak président Macky Sall léegi yow nee nga yoon yoonu Macky Sall amuñu benn link waa xaaral amuñu benn waa xaaral xaara dinaa la wax nag lu leen link. maa ngi lay déglu. yaa ngi dégg. wax ma wax la lu leen link. lan la tey jii ñan ñoo ëmb aji saar. walla lay laaj eh bu ma dawoon tey dugg Feeling Dakar l'avocat waa xaaral su ma dawoon tey dugg Feeling Dakar. waaw waa Feeling Dakar téye ma. Mm. kan moo ma link. <laughs> Bamba Diop moo ma link ak madame Diop yaa ngi dégg ak ñun ñii fi nekk léegi dama ne li ëmb abu Adji Sarr encadrement aji Sarr mooy ñan wax ma ko encadrement Adji Sarr mooy maître El Hadj Diouf ak kan ak kan ñu jigéen ñi ñu jigéen ñi waaw Françoise waaw léegi ñooñu kii ñooñu waa déglu ma jàmbaar kii bu ma dagg ma yeggale rek mu ma daaneel mu wax yaa ngi dégg. voilà man man dama ne. Uh-huh. léegi ñu ko ëmb noonu. ñu uh-huh. ko ëmb. APR lañ. wala wala wala wala wala Ousmane Sonko lañ. ñooñu ñooñu dañoo bëgg place rek. ñooñu place rek waay waay mais gisa goo fi non Jimbori attends nag Bamba gisa goo fi benn boo xamante ne bi digne de son nom Bamba ku Macky Sall Bamba ma ku Macky Sall fal par décret nga gis ko mu lënkaloog waaw déglu ma déglu ma ah? déglu ma ñi bëgg place ci Macky Sall bi wër place waa ah ñoom ñooy def nii aji Sarr pour bëgg place. waaw mais dama ni xaaral ma wax la dara ñi nga xam ne dañoo ñëw ëmb aji saar yaa ngi dégg Ndeye Khady Ndiaye du jigéen. waaw jigéen la. jigéen la ah? bu fekkante ne yow yàlla moo la tax ngay wax te dangaa ñëw créer ONG boo xam ni dangaa wone pour bu kenn néewal doole jigéen. moo tax nga nga encadré jigéen. Mm. du noonu. Mm-hmm. kon boo ëmbee Adji Sarr di nga ëmbaale Ndeye Khady Ndiaye. yaa ngi dégg léegi boo écarté Ndeye Khady Ndiaye. léegi lé boo écarté Ndeye Khady Ndiaye nga lëng euh, kii Adji Sarr kese. loo foo féete fan nga féete. APR nga féete waxal rek léegi dañoo gis ni Ndeye Khady Ndiaye léegi ñi ko ëmb ñan la gaa yi Ousmane Sonko yi ñoo ko ëmb am na wala amut waxal. laajal ndeyge ndax am na wala waxal non waa eh man maay wax yaa ngi dégg. gaa yi Ousmane Sonko mooy. d'accord léegi xoola dama ne la Ousmane Sonko. ak Macky ak Macky Sall jaasi lañ leen def di leen dagge bopp soo bëggee dagg bopp kii naka la tuddati ñële Sonko da ngay yore jaasi maki Sall. dëgg la boo bëggee dagg bopp bopp maki sàll daa di yore jaasi Ousmane Sonko léegi di di di daggante daggante bopp yi mel ni Tulle ak male yaa ngi dégg ba pare ñi ëmb aji Sarr. damay aji saar laa bëgg a yee tuuti. bu dee man damay wax mu mun ko déglu bu nekkoon sama sœur. Hmm. mu nekk sama jigéen. Hmm. lii laay seet si moom. bamba su may hmm. xeex. yow nga ñëw di ma faral sa lex yi mel ne karbet ñu jekki-jekki sa lex yi mel ni hamburger fooy jëlee li ngay lekk. dama lay laaj pour ñu tëj foofu chapitre moo laa yor na ay ojo wala yoru. moo Mollah xoola laa wax ju bari ji nii. dimbalewul Sonko de si sama gis-gis man. kuy dimbali Sonko du nii nga koy dimbalee. noo koy dimbalee xam nga Senghor daana wax wax bu am solo nee na xam nga nguur kan moo baax ñu ne déedéet mu ne ki toogagul boo ñamee sées bi yow. Hmm. mu tàng jër yow yaay xam ni li ñam nga musiba. yaa ngi dégg mais xam nga usmaan Sonko li mu indi programme la indi. programme bi mu indi ñun wóolu nañ ko. mais Sonko est-ce xam nga Sonko santul kenn pour muy saaga kenn. sant kon kenn de. am na wala amut yow yaay saaga sa saaga bopp. bugg a xoola bugg a dawalaale. bugg a dawalaale sa bëz. xoola xoola xoola ma wax la dara. Ah. awra aji saar yi. ñu ah. bëri si lañ amee bëz si lañ amee xaalis si lañ amee lépp du ko def utukaayu xaalis bàyyi réew mi du yoon. aji saar yi. waaw ñu bëri utukaayu bëz lañ ko def. ku jóg golo gu jóg rek live ku golo gu jóg rek live golo gu jóg live golo gu jóg di ci wax ba pare ñun ñooy fowee suñu bopp. xam nga fooyee suñu boppal mooy lan. di fooyee justice. ñun ñooy fooyee suñu justice. yoonu Macky Sall la nekk ci justice bu waxee dara. Hmm. tey jii boo fi toogee tey ba am sa jàmm. Hmm. kenn du la dogaale ci dëkk bi dóor la nangu sa alal justice lañ ragal moo tax kenn du la songu merci beaucoup. waaw Jimbori euh, alors euh, c'est gentil jërëjëfati Jimbori euh, cas bii nga xamante ni